coordination sénégalaise des acteurs du pèlerinage et de la Umra COSAPO di kuréel gu yëngatu ci wàllum ajug màkk gi fii ci Sénégal amal nañu visite bu yaatu lool fii ci Touba Mbacké ci ndigalu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir visite boo xam ne ñaari fan la di alxamis ñaar fukki fan ak juróom ak àjjuma ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars atum 2021 délégation bi nag bi ñu agsee ci Touba dalal nañu leen fii ci résidence Khadim Rasoul seen membre yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba ñoo leen taxawu tatagal leen dalal leen ci turu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir. yàlla bu baax ci dëkk awalan di ñaanal alxalifa sëriñ Muntaqa yàlla na fi yàgg te ànd ak dëkk bii ñu tàbbi tey Gosapo ñëw fi dëkk la boo xam ni xadis bii may bëgg a wax ñu ko jàng lañ waaye ñu ko jëfe lañ man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu ñaareel bi itam mooy li imaam Abdullahi wax léegi dëkk bii ma taxaw xalifa bi day ak li mu njaboote ñu ko jàng lañ waaye ñu ko jëfe lañ man lam yahtamma bi umuril muslimin fa laysa bu njëkk bi mooy li yonent bi ni ku gëm yàlla gëm bés bu mujj ba soo amee gan nanga teeru teral xawma fan waaye tuubaa gii ku ne xam na seen melokaan ci mën gan liy taral gan muy kanam ga di nga ko fi fekk liy taral gan muy berne ya ko fi fekk liy teral gan muy yàlla ji ngay yëg ci sa xol di nga ko fi fekk kon tey COSAPO ñëw nañu Touba ci jóg boo xam ni lancé woon nañ ko dakaar le trois mars dem Thiès mu doon kuréel boo xam ni li ko tax a jóg mooy dañuy yëngatu ci aj màkk fa ñun ñëpp demuñu màkk lan moo ñu tee dem màkk nag li tax demuñu màkk nit bu fakkasaloo daanu du xool fa mu daanu day xool li ko sal li ñu tee dem màkk bi ñu xoolee lan la ñu ni covid bi moo tax ñun ñi nga xamee ni ñu ngi yëngatu ci màkk nanu jóg nag ñu taxaw ci lii nga xam ni bokk na ci gàllankoor yi nu tee dem ñu wax ci ak nit ñi ba ñu xam ni lii kat bokk na ci suñuy gàllankoor ngir li tax ñu war koo moytu ñu wax ci ak nit ñi damay wax ne nag li tax ñu war koo moytu fii ñu ñëw moom fekk nañ ko fii ba pare mooy lan mooy ñaan mooy tuub del suñu boroom mooy saraxe mooy moytu te ñeenti yëpp fekk nañu xalifa bi Serigne Mountakha nekk ca kanam. ginnaaw bi ñu leen dalalee ba noppi amal nañ visite bu yaatu ci juróomi daara yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi nga xam ne moo di tuuba yóbbu fa ay xéewal yu yaatu muy ay ndimbal yoo xam ne dañ ko jagleel bërëb yooyu le muy ceeb diwlin suukar mask ba ci gel ak ay kaamilu alxuraanul karim jébbal ko yooyu le daara daara ju ñu dem nag ñoom waa COSAPO leeral nañu leen li nga xam ne moom mooy seeni tànk waaye fàttali leen ne ñoom ñi ay nitu daara lañ te kenn waru leen jiitu ci jëfal leen ak taxawu leen moo xam daaray Serigne Gora Niang la nekkee ci daarul Minane ak daaray Minanul Baaxil Xadim bu soxna Muslim Mbàkke bintu Serigne Modou Bousso Dieng bokk na ci it daaray El Hadji Ndiaye Cheikh Ndindi nekkee ci yoonu njurul bi moom it dem nañu fa amal fa visite bu كافر خريب وليس لي خيرك هاهنا خريب délégation sénégalaise des acteurs du pèlerinage et de la Umra COSAPO dem nañ it ci grande mosquée bu Touba giseek daayira muxaddamatul xidma bi nga xam ne mooy saytu jumaay Touba ji jaarale ko ci ki nga xam ne moo di imam bi di sëriñ Afe Bousso bi ñëwee ci jotaay bi am na ay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko fa. bisub alxamis dëppo ak vingt cinq ci weeru mars deux mille vingt et fii ci biir jumaay Touba ñu fekk si fi ay kilifa jullee fi tàkkusaan ci bis bi ñu wax euh, fekk fi al imam Serigne Afia Bousso ak waa daa'irat Muxaddamatul Xidma ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy toppatoo jumaay ji li waral jotaay bi tey nag mooy mbooloo mi ñuy tuddee COSAPO te muy kuréel goo xam ne dañoo lëkkaloo di saytu wàllu diine ci aju Makka ak umra ñu ñëwoon tey fii ci Touba di def ay visite maanaam ñëw ci dëkk bi waaye nag ginnaaw bu gi ci dëkk bi ñu dem ci ay barab di ko nemmeeku nemmeeku bii nag nekk ci biir jumaa jumaay Touba. ñëw gin fi ñëw tey nag dem seete daara yi yóbbu fan la ñu am ngir ñu jàng alquran ñaanal ñu ndax alquran kat bu nu ko wanee gannaaw fitna rek la ñu dëkk wa man a arada an dikri fa inna lahu maishatan danka wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama kon fa tabarakallahu xëy nañu ci ay daara ànd ko ñoom Serigne Moulay ak Serigne docteur Moustapha ñoon imam Mokhtar ak Serigne Khadim ñoon ma Masamba ñu wër daara alquran yi fekk fi li nga xamee ni moom la Touba xam moom la Touba am moom la Touba gëm te mooy jàng ak jàngale nekkuk taalibe gu mat sëkk bi nu xëyee ci loolu fa tabaarakallaahu ñëw jullee ndoog yow topp ci sa gannaaw julli siyaar bërëb ju tedd bi sunu xol gën na dal sunu xol gën na féex di sàkku nag nga dolli ñaanal mbooloo mi dolli ñaanal ki nga xamee ni mooy suñu délégué général bi nga xam ni moom lañ ñu booleel muy professeur Abdoul Aziz Kébé yàlla def jàmm ci réew mi jële fi mbas mi jële ko ci àdduna bi yépp ba bunt yi mën a ubbeeku kàddu yi moom du gudd di wax ne rek weesu rek wax ne yëg nañ yëg-yëg bi yëg nañ ko bu baax leen tax a jógit xam nañ ko bu baax doon ko utti gi xam nañ bu baax xam nañ ci it ne mbir mi ci loxo doomi soxna lekk ba tane xel gën nañ ci dal bu baax ku ñu di ñaanal tawfiq ba fépp fu ñu ko bëgg àggale parce que bi dëkk ci yéen ba bëgg lépp di yàlla yàlla ko yàlla dogal yàlla ci yàlla to feexal ñëpp dem bi di yàlla dépense bi di yàlla yëngatu bi di yàlla lépp di yàlla àddina génn ci bi sa becc ndax lépp euh, du yàlla rek amul njëriñ lépp du yàlla neen kon lépp na yàlla lépp lépp yàlla na yàlla jërëjëf ñu ngi sant ñu ngi gërëm ya rabbana inni musafirun xarib walaysa li xayruka haahuna xarib fa habli rujua min saa safari in kaana xayran lii bi xayri safari daaray sëriñ Abdul Ahad Sané nekk boroom xam-xam gu mag fii ci Touba Mbacké nekkee ci aliya moom it amal nañ fa jotaay bu am solo ba ci daaray sëriñ Mourtada Bousso moom it nekkee ci yoonu beleel bi moom it délégation bu ko saapo amal nañ fa jotaay ak kilifa gile fenn fu ci nekk nag njiital COSAPO di président El Hadji Idrissa Gueye ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal yëkkati nañu fa ay kàddu gën a ratal xalaat seen diggante kilifa yi nga xam ne ñoo yor daara yi lee ak seenu jàppale jëme ci ñoom. visitub alxames gi nag ñoom ñu ngi ko jeexalee ci kër Serigne Moustapha Mbacke moom El Hadji Bara Mbacke Falilou bi ñu fa agsee ñoom délégation bu COSAPO leeral nañ ki nga xam ne moom moo di Serigne bi li nga xam ne moo jëm ci aj Màkka gi ak yéene gi nga xam ne moom lañ ci am. baay booy sa doom yi toog ci sa wet ñooy njaboot yi nga xam ni kat bu aj màkka jotee ne ni ko président di jàngale képp ko bëgg say ujaaj bu ñu demee màkka ak Médine du nu fa yaakaar rekk neexitu restaurant yaag climatiseur yu seddee waaye danañ yëg ni seen jaamuk yàlla gi saf na sàpp yàlla ñu war ko dellu Sénégal ku nar a def loolu ci say ujaaj danga xalaat ñii ñii mooy ñan mooy ñi nga xam ni daara moo leen jur tariixa la gëm sunu mag réew la gëm sunu jàngale mag réew la gëm sang bi ko teg loxo ci sa doom yi nga jàkkaar lool boo ko tegee danga nga yëg ni daara jang ko tegoon mu wuutu la fa ma nga fa ba léegi ñuy joxe bind ñoo toog nii ak di téyele bind ñii nag bu aj jotee ku wax ñu wax ku waxul ñu wax ndax nit bu amee fayda du nangu alalam yàqu te aj màkka nag li ko nar a róor bokk na ci koom mëñ ca séen ku ko jàngul dana ca dugg commerçant ba doxo doxo leetul sax dana ca dugg kuy dem dem ba xamatoo foo jëm nga ni naa dem dugg ca aj ndax maa ngi cee dégg million ndax benn ujaaj rek dana la jox lu ëpp ñaari million ku mel nii nag bu ñëwee bu dugalee ujaaj bi ci avion ba ne ko cëpp ca sang bi sallallahu alayhi wa sallam pare na ci moom bañ tasa Sénégal pare na ci moom firiwul ni da ko fay bàyyi ñibbi Sénégal waaye ñii la koy jox bu ñu waree ziyaari sang bi ñii lay jiital fu ñuy jaar ba dem ci rawdu sang bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu demee Makka war a tawaafeeg ya ca aju ñii lañ naan jiitu leen samay ujaaj topp leen amaan na moom ma nga ca hôtel ba tëddi nelaw ñu yëg kon ni nag sunu yëf bu neree yàqu te ki bañ mu yàqu nun lay jiital def nu bant di nu xeexe kon nun nan jël sunu yëf doxalal ko sunu bopp su dul woon li ma bëgg a seede du ma wax ndax li may bëgg a wax ki ma koy wax moom lañu ko doon doxal lépp lu ñuy dox ci aj di ko wax Serigne Moustapha Baare mii lañ koy doxal donnu ko ko say maam donnu ko say maam donnu ko say baay wëlbatu ko taxaw di ko def adduna yëpp teg ci seen bët di yóbbu ay nit di jooxe ji jëf jooju di toog ci nit ñi di di dugg ci nit ñi loolu at bu ci nañu dund ko ak yow kon ñun li ñuy dox Mbàkke yow rek lañu koy doxal lépp loo xamee ni luñ ci war a joyanti la yow yaa koy joyanti lépp loo ñu si war a soññ ñu war ko yokk yow yaa nu koy soññ xamal ni COSAPO gii duñ la ni si nga bokk ndax yow loo moom la dañ lay dugal déedéet yaay seet ñooy dugal ko dul dugal ndax lii sa alal la kuy wax makka ba yegg ci si Serigne Moustapha Baara xam nga ni indil nga ko alalam ñii di waa santé nag yëg gi ni mbas mee tax demuñu ñu ni lan moo fi mën a jëlee mbas mi ñu ni ñaan. ñu ni tuub dellu ci suñu borom ñu ni saraxe ku ne koo te ne ngi dimbali ko ñeenteel bi ñu déglu digle kër docteur fas alu ahla dhikri in kuntum laa taalamuun ndax lu mën a dal nit bala ngay dem màkka yi docteur daanu seet sa yaram ñu ni kon comme nee nañu lii la kon ñun nañu jóg bokk si ñuy wax ngi wax ngir nit ñi sàmmonteeg loolu moytu ñaan te déglu jëfandikoo yi nu docteur yi wax ngir yàlla mën ñoo musal ba ñu mën ñoo ubbilaat buntu yi ba ñu mën a dellu baytileel xaram ñoo ngi nii 2021 kenn ku mën a wax ni aj dina am Sénégal dem amagu fi président mënagu ko wax ministre des affaires étrangères mënagu koo wax délégué général mënagu koo wax parce que Sénégal organisé wul aj day participer ji ci aj gi waa Arabie Saoudite ñoo koy organisé ñooy xool ba ni mën nañoo recevoir ay nit nii nag lañu bëgg recevoir ay nit ku mën dem ku mënul toogal ndax man nii laay recevoir samay gan maa moom sama dëkk bi bala ngay dugg lii laa soxla soo ko mënee nga def dem te loolu fii mu ne ba fii may waxee yow Mbàkke koo dégg muy wax day wax rek waaye kenn ku ci mën a wax dara amagul ndax ki sunu kilifa di professeur Abdoul Kebe ba bi nuy mujj a tàggoog moom waxaguñu du am ñu day am kon li ñuy ñaan sunu borom di ko sàkku ci yow sa barke maam nga ñaanal ñu ko mooy nga ñaanal ñu sunu borom teggi yëf yi woyofal yoon yi ba ñu mën a delluwaat dëkk yu tedd yooyu le delluwaat baytilaal xaraam dundalaat suñuy ruux ndax loolu la du soxla. Serigne Moustapha Mbacke moom El Hadj Baara Mbacke Falilou rafetluwaat bu baax a baax nemmeeku gi nga xam ne def nañ ko fii fi Touba Mbacke rawatina ci këram gi nga xam ne ñëw nañ fi. feddaliwaat ak kóllëreem jëme ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci COSAPO waaye fa yéene ànd ak ñoom liggéey bi nga xam ne bu kawee lool la. ahlan wa sahlan ni ko sëñ Samba Diaw waxee lii dal na xel ci li ngeen di wut fii ndaxte kuy wut taqwa di ko wut ci fan ci ruknu ak arkaanul islam xaj nga ne fan nga ko defee muy madinatul jannatul aliya gi nga xam ne moom la ñuy day jagle loon alhaaji Mouhamadou Lamine Bara yaakaar naa kuy xool ci taarixul mu taarixatul muridiya ah, ah, ku def xujaaj adaat ah, yi nga xam ne moom la fi alaaji Bara def ci aj kenn kenn mënu amul boo nee benn doone ñaar wala boog awalu mara kon na ci na seen xal dal li ngeen wax tamit ne moom moom ngeen di wut muy yàlla ju saf sap sap sapp ci ci ci ci ci aj gi bis ni ko tey da ngeen ko am fii sëñ mu loolu la wax neex yàlla ndaxte wute ngeen ko koo xam ne ku masaan ku bëtam masaan xonq ci aj ci fi nga ñëw ci alaaj baar nga ñëw ca rawaan bay ba tey problème bu am ci alaaj baara moo koy réglé ci Sénégal ci kaw ñu bésal béral ko nag wala ñoo waay waay soko kon nag bu yàlla dee def dara du hasard bu ngeen ñëwaatee ba ñëwaat fii def kon nag alhamdulilahi rabbil alamin kon nag bu nee tamit euh, taxawaa jooju lañ soxla oustaz Idrissa lan yanaal allahu luhuumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa ñun ñii loolu moo nu gën a mel ndaxte ñun ñooy ñooy màkk maay moo ñun ñi mbir mi yàgg na ñoo ñor yàgg na ñoo metti bi ñu demee ba nga xam ne ñi ci wërtoon a bokk bokk nañ ci loolu sëñ Moustapha mi yegg na ko mën waaye nag mbir bu ñu demee ba nga xam ne nag doomi daara yeeg ñi nga xam ne ñoo xam loolu ñoo ko yor alhamdulilahi rabbil alamin kon nag sëñ bi mu ne mi ngi leen di sant bila kaabatin xiraabin wa bila fay unaynin yaa karim wa bala ci àjjuma ji dëppoog 26 mars 2021 COSAPO bi bi ñu xëyee fii ci Touba dem nañ ca daara Hizbut Tarqiyyah ngir jaale ji sëriñ Atou Diagne mi nga xam ne moo fi bàyyeekoo woon ci mois de janvier 2021 bi ñu génn jaale ko Serigne Youssou Diop mi nga xam ne mooy responsable moral bu daara daara Hizbut Tarqiyyah waaye feddaliwaat seenu kóllëre ak waa daara ji wa kullu insaanin taallaqa biyaa fa asli an umarahu ya rabbiyaa ginnaaw bu délégation bi bàyyeekoo fii ci daara Hizbut Tarqiyyah dem nañ visiter ji complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi di projet éducatif bi nga xam ne moom la Cheikh Mamadul Muntaxa ba Bachir taxawal fii fi Touba ñoom ñu dem ñu leeral leen mbooleem li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi travaux yi fi mu toll waaye li nga xam ne moom la sëriñ bi naal ci site bi loole lépp ñu leeral leen ko ñu am ci mbégte lool waaye rafetlu ni nga xam ne noonu la liggéey bi doxee ak ni ko sëriñ bi di taxawoo bijaayi xayril mursaliina yaa jamil wa jaayi xisbihi wa man lahum yamil kuréel gi nga xam ne dañuy yëngu ci aj màkka gi di COSAPO ginnaaw bi ñu jugee ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi ñëw nañ ci grande mosquée bu Touba dal di fiy jullee juma ci wetu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ginnaaw julli gi nag leeral nañu Serigne bi mbooleem visite gi nga xam ne amal nañ ko ci dëkk bu sell bi di Touba ci diirub ñaari fan yi sëriñ bi nekk lool rafetlu na ko lool rafetlu taxawaayub COSAPO jëmee ci aj màkka gi waaye daal leen di ñaanal